wani nek sama na ñu yag lool nak mm-hmm. torop lool lool muy ku tedd ku baax ku bëgg def lu rafet ku bëgg def lu baax ku fonku liggéey ku mm-hmm. mm-hmm. je suis convaincu certain persuadé à un milliard pour cent du def lu dul jël lépp delloo borom bi du def lu dul wax benn kàddu alhamdulillahi rabbil alamin ndax xam naa ci moom gëm yàlla waale ay waajuram def nañ ci moom nangu ndogalu sunu borom mm-hmm. waajuram mama jaaga